asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu suivre ci Equivox TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar tey nag defe naa ne gis ngeen fi ñu nekk muy Parcelles Assainies dikkaat nañ fi ah unité 7 koñu Franky koñu njaago yi muy nuyu njaago yi njaago yi leen di sax ama olof yi da naan asalaamaaleykum ah ñu nuyoo njaago bule bule fayis kon nu yox bulem kon bulem lee njaago maa ngi nuyu njaago yëpp di leen ñaanal jàmm di ko sàkku si ñoom seen doom moo doon bëre tey waaye sax mën naa ne doomu parcel Assainies ah parce que Franc ñi koy jàppale donte ci njaago yi la soqe ko waaye nag yaakaar naa parcelles yëpp a koy jàppale te parcelles bépp doomu sénégalais ngi fi ak sax ñu dul ay sénégalais di la nuyu di la félicité di wax ne que tey ñu ngi lay féliciter combat bi nga jóge sa tey Tyson 2 Franc ñu ñëw ci koñ bi dugg nañ léegi ci kër gi gis nañ sa ay mbok say sœur say frère ni ñu waxee maa ngi lay bëggee. waaw Babacar maa ngi lay fay xam nga avant tout dañuy sant yàlla bu baax a baax xam nga di sant euh, Yesu ma sant yàlla bu baax a baax santaat ko bu baax comprendre nga parce que dañ doon ut yàlla moo ñu may comme boog foog ñu gërëm ko sant ko waaw ñuy sant yàlla bu baax di sant ñëpp ñëpp ña nga xam ne ñoo ñu doon ñaanal rawatina waa Parcelles Assainies 1 ba 26 waa Cambérène Déggo ak waa yoof ñëpp daal ñëpp bu ma limee damay juum xam nga ñu ñu doon jàppale yëpp pour ñu am ndam. ñu ngi leen sant di leen gërëm waa Joal Fadiouth waa Diouroup waa Djilas waa Fayako waaw ak sama benn waay ak na waa Nangaan tamit waa Nangaan Samb dëkk laay ñoom bar Pape Fall borom Espagne maa ngi lay bëgg bu baax a baax. am na solo Franc bi nga jëlee eh, Tyson 2 combat bi kañ la taxawoon. waaw ah, ci weer bi la taxawoon combat bi def na at Babacar combat bu métti. moo tax ma ne kañ la taxawoon ci weer bi la daanaka weer weer bi maanaam mois de juin juin wu daaw juin mille vingt. lañ ko fi sale woon. waaw ba juin deux mille vingt et un muy kon yoon wi yàggoon na. trop te métti métti mais aussi xam nga père ba suñu maam père ba du ma taay di ko wax ak doomam Mansour Ba xam nga ak sama grand yu nekk extérieur ku ci mel ni grand Vince grand Daniel Gomis aussi tamit grand Daniel bu nekk États-Unis sama basketteur bi maa ngi koy nuyu bu baax di ko ziar aussi tamit grand Gérard. maa ngi koy ziar tamit maa ngi koy ziar bu baax ñoom ñu ngi extérieur ak Khalifa Sankaré ñoom ñëpp ñu jàpp ci xam nga affaire yi métti trop ñu ci jàpp ak course jamono aussi tamit jàpp na ci du ñu profité du ñuy waa jàmbaar académie Wrestling xam nga man ñoom ñoom ma foofu laa nekk ñoom ñoo ma jàmbaar nga ne. jàmbaar laa ne. Ah. Mhm. administrativement sa jàmbaar nga ne. waaw jàmm ci kayit. waaw kii woogul ci kayit mais après dinañ ko rek yu ndaw rek yu ndaw rek après. mais Franc moom contact am ñi koy encadré waa jàmbaar la. waaw wax dëgg yàlla ni ma mel tey état bi ma yor ni ma mën a fépp fu a dem mën a bëree jaar fu ma war a mën di jaar bëreeg nit ki pour jàpp adversaire bi perturbé ko def ko li ma koy def waa jàmbaar ko def waaw. combat bi biñ koy dox est ce que yomboon na pour mu taxaw Tyson 2 yaak moom est ce que yomboon waaw moom moom dafa bëggoon bëre moom dafa bëggoon bëre man tam ma bëgg a bëre moo tax du métti comprendre nga. daa bëgg bëre moo bëgg bëre moo tax du métti loolu la rek. tax taxawal ko ci yomb ko loolu moo tax taxawaloon ko da euh, maanaam taxawal combat bi yomboon daal. ah moo tax mu yomb bu Babacar soo bëggee bëre man mu bëgg ñu bëgg a wér day lu fay métti ci. du métti ku bëgg fu mu fanaan nag ku bëgg ku ko wéttali. waaw ubbal bunt bi du leen boole waay. bilaay wallaay. combat bi taxaw yàggoon lool am un ñu ñëw ba ñu jàpp datu combat bi biñ ko jàppee le 9 euh, la le le le kii date biñ ko njëkk a jàpp le 9. le le njëkkoon wax la 30. le 30 mai la njëkkoon wax. ñu dem ba si biir ne chef de l'état ñu demaat ba si biir ne le 9 juin. ñu demaat ba si biir ne dañ koy poussaat 10 jours. xam nga ba tax na aussi tamit ak coach yi ma doon entraîné ñu ma yor olympique sama coach yi ne olympique muy coach Lamine ak Lazare maa ngi leen nuyu bu baax a baax lii rek lañ ma bëggaloon dañu lii rek kese. dañ ma doon teg lu métti dama doon damay yeew fii 6 heures du matin laay yeew dem rek ngir bëgg dara aussi tamit ñoom tamit ñu ay jàmbaar xam nga damay bàyyi sax dem affaire yi métti ñu ne ma non doo bàyyi ne ci rek waaw te lii lañ ma bëggaloon. lii lañ la bëggaloon li nga bëggoon liñ la bëggaloon am nga ko damay dikkaat nga dikkal ma ci film combat bi arbitre bi bi mu soufflé yaag ta yaag euh, Tyson 2 nu ngeen bëree ba jël bi am. waaw moom boo xoolee moom dafa ma bëggoon humilier waaw dafa ñëwoon pour pour humilier ma quoi parce que avant arbitre bi boo boo xoolee mu ngi position arbitre arbitre mu ngi naan sifflé moo leen moo leen moo leen tàgg moo leen boole waaw comprendre nga daf leen nang sifflé gu ma comprendre nga. waaw dafa yàqamti man di liir naa loolu gis naa ko gis naa ko ci moom xam naa ne dafa yàq parce que jàmbaar la aussi tamit quoi moom bëre jàmbaar lay bëre moo tax combat bi gaaw nii. humilier la su ma ko déggee maanaam daf la bëggoon dóor nga daanu wala. waaw xam nga nit moom pour bëgg kii dafa bëri façon. humiliation dafa bëri façon xam nga. waaw. moom ban nga xalaat ne ci lan la bëggoon humilier ci dóor wala bëri. ci dóor waaw ci dóor parce que bi dafa sifflé rek mu maa ngi ko gis mu ngi màttu waa ah. yooyu waaw. mais xam nga boo boo boo nekkee ci benn keppaar boo xam ne xam fu ñam papa saw ne ñoom Modou xam nga di la conseil di waxtaan ak yow surtout papa. si maa ngi koy gërëm bu baax a baax di ko sant moo xam lépp lu mu bëgg ci àddunaam yàlla na ko suñu borom defaral. yow ban moment parce que gis naa bi mu la gëddee di xeex ak yow di sànni ay ku ngay arrière la moo taxoon dama koy xool saay bu ñëwee dama koy maa koy gis naa ko parce que travail naa ko maa course jobon travail nañ ko dama koy xool reculer buy buy buy taxawaat pour jël armée dinaa buy taxawaat pour jël garde dinaa boo xoolee dinaa dóor dinaa dugg génnaat moom mu ngi taxaw foofu waaw. bi nga riposté daa mel ni sa riposte dafa gën a gaaw pasam parce que dem lu bëri ci kaw. waaw ko suivre moo tax ko suivre naa ko benn ma gis mu aj loxo yi mel ni ku wéeru nii. mu ensonné dox ci kawam. ko coup bi nga ko doon atteindre na. ma dox ci kawam. coup bi moo ko da coup yi moo ko da moo ko wàcc loo wala. si coup bi ah xanaa yow say bët baaxul. ah kay maa ngi gis kay. damay bañ nga juum de. damay laajte di. maa ko damay bañ nga juum de. man damay bañ a juum moo tax may laaj. ci àddina. àddina kon kuy moo ko dal moo tax mu wàcc. waaw coup bi dal loxo bi dal na ko dal na ko quoi dafa jël coup moo tax mu wàcc après. mu wàccee daw ñi di jéem mu ngi résister sax ba nu muy daanoo waaw moo ñëw wéeru ko. am na ñu doon wax ne Franc xeex bi du avantage am bëri bee avantage am tey nga wanewaat leneen. waaw moo tax làmb moom kenn xamul lan la comprendre nga man mooy li may wax si bëre rek fii comme ni ko suñu père di waxee père Max Mbargane lu mu wax nee na dëkk la fayoo fa jaar tas muy noonu fii kenn du la fi topp di la door te doo fayu dafa yor loxo ñu yor ay loxo loolu la rek. comprends nga bëre bu ñëwee dañ koy teg ci yoon ñun dañ koy teg ci yoon dañuy xool lu ñu war a bëree ñu def ko programme la entraînement lañ di pendant ay 3 mois 4 mois ñooy la nii ak nii ngay bëree nii ak nii nii ak nii ba keroog lu yàlla di def. bi nga gisee Eumeu Sène andi ko amul dara lu yëngatu ci yow. yàlla xam na ni sama yaram dafa gën a tàng. bi nga gisee Eumeu ànd ak. yu boo xoolee maa ngi koy yuuxu sax. na nga ko Eumeu. Eh, eh, eh. yaa ci prépa nga ko doon yëg dama ko Eumeu prépa yaa ci des. Ah. waaw. a ci des. moo ci des kay. moo indi. Franc mbaa du ndam lee neex nga ne maa ci des. non xam nga Baab mbër mu mag man xale laa. dafa ma li ma doon def yëpp dama ko bàyyi ngir làmb. damay yeewu fajar. di entraînement ji ngoon ma ñëwaat ñëwaat ci. kon tey ku la joxoon avance Eumeu Sène fi ne nga lekk billaahi bi ma ko joxoon du fanaan mais budul budul budul Eumeu Sène tey daan nga Tyson 2 muy mbër bu mag parce que li tax ma ne la mbër bu mag la mbër yi mu daan ak palmarès am boo ko xoolee ak sa palmarès moo lëpp ay ndam. na ñoo xam ne si lamb si am na ñoo xam ne dama leen déglu. comprends nga dama leen déglu seen analyse. ñu ne Tyson 2 mooy favori. ñu jël lépp ma jël lépp ma nangul leen ko. man mi man mi Tyson 2 champion la. Tyson 2 tey ku ko daan da nga war a percer da nga war a jël gaay gaay dañ la war a jël. mbër bu mag nga daan moom. waaw ñaata mbër ko fi daan. bëriwul guy gi moo ko fi daan ak Elton. waaw man maa nekk ñettal bi. nañ nañ nañ bëri man Babacar su ma jugee waa parcelle yëpp topp sama ginnaaw ñëw parcelle Cambérène déggoo Yoff ñëpp gra waa Grand Yoff aussi waaw ñëpp géejawaay ñëpp ñëppay ñëw. léegi sëndën bu ma ko sampoon ci su ma ko sampoon ci diggante Moussa Ndoye Sa Thiès looy wax. non yooyu sax. man maa ko fa samp. man maa la fa sampal ndënd. Babacar Babacar su ma amul ëmma seen naa naa la de am. ma feeñal ko. leer laa la Lac de Guiers naqari daan de. dégg ma. Lac de Guiers naqari naa bëreel daan. ah ma daan ko. Lac de Guiers Lac de Guiers defet de. bu laax ma daan ko Babacar. yow Lac de ni muy bëree man nga ci dara ci moom. <laughs> aguñ fa na avance bi ñëw nga xool. kon nii nii tamit pare nga pour Lac moom daa amul combat. waaw na ma jël. Lac de Guiers na ma jël nga bëgg a dugg géej waay. si mais làmb noonu la quoi ñoom dañ fi fekkoon seen i mag. seen mag dimbali leen ba ñu ñom ñoom ñoo ne fii ñun seen i raq lañ ñu bëreeg ñun. sport sport noonu la ñun bu ñu ba nekk foofu suñu raq bu ñu ñëwee tam ñu bëreeg ñoom hmm. waaye. kon daal sëm dën yow doo ko samp fenn fa du Lac de Guiers rek Eumeu Sène nga ko sampal. Eumeu Sène comme ay deux avance dafa xew. bu ñu bëggee sax man. je m'adresse à Père Gaston. na ñëw na ma jox na na jox na ma jox Eumeu Sène ak kii Lac de Guiers. ma ma ah dañoo taxaw foofu di leetoo ba fajar kenn kiiwul. kenn ak kan moo ko Eumeu Sène. leetoo ba fajar lañ def leetoo ba fajar. Ah, est-ce que loolu lañ def. bu ñu ma joxee leetoo bi leetoo dama koy test ci ay ay minutes mu jël ay secondes. kon yaa ngi <laughs> de Guiers de bu ngeen du niin. non non nil fan Babacar man damay entraîné xale laa entraînement mooy sama job lépp li ma def nee dama ko bàyyi ngir làmb rek kam dama ci def fu la fayda jom làmb moo ma dese fu mu toll nii loo xam ne ci nga war a sa vie waaw maa ngi ñaan ñëpp nag sama ñëpp ñi ñëpp daal ñu tàllal ma loxo man xale laa xam ma ñu yokku ma ñaan rek yàlla bëri na sutura quoi waaw eh. suñu bët am na fuñ ko teg te fu mu toll nii ay ndaw lañu wax ji sax warul bëri jëf bi rek moo war di ëpp waaw. jëf jee war dépp jëf moom ak lu waay mën a wax di yaa koy def ndax itam ñun loolu lañ lo maanaam loolu nga wan. waaw mais des na am na yeneen. yaa ngi ci sa dix dixième combat su ma juumul. waaw bi mooy sama dixième combat. dix victoire waaw. te li simple tamit macha allah daa mel ni ah euh, keroog bi gars yi defee yi fan yi cinq mbër yi nga ne ñoo teel simple bi actuellement yaa nga biir boo newul un sax defe ak Serigne Ndiaye de. dañuy sant rek xam nga dañuy sant rek parce que yi moom lépp loo waaye munti wax daal te liggéeyoo daal yaa ngi nax sa bopp man loolu laa gëm quoi. luy sa secret. ah rek ànd ak sama grand di liggéey papa. loolu kase waaw. muy Babacar muy li ma wax ni li may wax ni dama nga génneel ma muy nit ku baax muy nit ku baax Babacar. Papa Sow waaw. Babacar ku bëgg nit fan yële ci ginnaaw. affaire yi météo na ci man trop. ma bëggoon moo non si affaire yi fépp sax xam nga ñun Babacar yow xam nga nu mu demee ñun yaa ma gën a xam waaw te léeg-léeg bi xam nga fu ñuy demee di fa amee ak kale woon mënatoo dem mbapat ma Babacar mën na doon jël jaar jël vol bi dem fan ah dem Modou ji bu ko xalaat papa moo ma ci dindi ne la toogal ci làmb sa wërsëg am na ko moo ci dindi ah. papa saw waaw moo tax mel ni daal ku sonn la ci yow ah. non xam nga maa ngi koy ñaar moo xam lépp lu mu bëgg daal yàlla na ko su maa ngi koy maa ngi suñu borom quoi moom ak jabaram xam nga ak famille bi yëpp quoi. si Modou itam sax nee nga ma Modou may na la xaas bu bëri ci combat. waaw ñëw ñëw assister con contact parce que ñun ñëpp benn lañu aussi parce que ñun ñooy suñu biir moom bu amee combat dafay mel ni sax ñun ñoo am ñoo koy gën a bëgg ñun tamit bu ñu amee combat dafay mel moo moo war a bëre defal ni yooyu noonu xam nga contact du la bàyyi xam nga. mooy loolu daal mu nekk lu rafet loo xam ne jafe na ci ay ay ay leader yu koy def. ñëw na sa open press ñëw na sa léegi su ma xoolee su ma ñëwee dafa mel ni seen diggante ak Pikine jeexagul de ndax donte daan nga tey seen waaye am na beneen mbir bu leen fa dese muy le cadre roi des arènes Ama Baldé. non loolu Modou ko seq. waaw loolu combat bu neex la Ama champion la Modou champion la hmm. waaw mais ñu ngi ñaanal Modou yàlla na ko yàlla may ndam. Modou am na lu daan ama actuellement nii. ah Modou yow ku yor a des arènes nga ko am na moom waaye yow lu muy wax nii. damay laaj di. Ah, loolu tay tay lu la xam. déedéet damaa bëgg xam. <laughs> mooy bañ nga juum de. juum moom laay bañ a def man. <laughs> mooy bañ nga juum de. non parce que combat ba dafa am enjeu de coow la caat te teel a bëri. waaw coow la dafa bëri mais ku muy bëreel ama ku muy bëreel Modou xam nga ko du caaxaane bés bëgg na bés da koy jox akam loolu rek avant plus la avantage la. saxamtuma leneen lu ne ci moom waaw bu la wanee jom ji wala xadar gi ak bëre bi hmm, am na lu desaat de wala. am na fitit daa mel ni de. waaw na. parcelle itam bu ma seetloo fan yii daa mel ni ah nit ñee koy wax maanaam dafa mel ni làmb relève lamb daa mel ni parcelle lañ ko gën a gisee parce que bu ñu gisee daam seen gis Franc ah Belende war a suba Garga 2 bëri na macha allah bu ñu koy lim duñ fi. waaw damay profité ci occasion bépp mbër bu dëkk parcelle buy bëri rek yàlla na la yàlla mooy ndam parce que ñun ñun amatul daanaka sax ay affaire écrit amatul fii comprendre nga ay affaire écrit amatul ñun ñun ñun ñun ñun ñun ñun ñun Babacar drapeau parcelle la ñuy porté moom la ñuy porté képp ku ci dem drapeau bi nga yóbbu képp ku ci dem yow yaay yaay tëdd fil bi loolu mooy suñu ambition te loolu mooy suñu gëm-gëm xëccoowuñu dara xëccoowuñu ma sàmm xëccoowu ma demba tey képp ku ci dem ñun ñëpp dañuy jël suñu doole jox la ku si ay tey rek wane na ko ñun gis nga mbër yëpp ñëw jël seen doole seen lu ñu am yëpp jox ma muy noonu. ana mbër bu mel ni Moussa Dioum defe naa moom ci ay loxo mbokk nga ci loxo yi nga doore. waaw ngi déggante waaw di ko nuyu au passage man ñu ngi déggante kay keroog rek déggante nañu woo naa ko yëgal ko open presse bi quoi mais xëy na dafa amoon empêchement moo tax ñëwul. am na yeneen mbër yoo xam ne tamit dafa mel ni euh, des fois ma gisee ci mbapat da ngeen di xaw di am ay jafe-jafe damay laajte muy aada booy bawal ak Ibou Ndiaye Obali te ñoom fii ci parcelle lañ dëkk yaakaar naa ne. waaw c'est normal c'est normal ñoom ñu dawee doxalee noonu parce que ay mbër lañu mbër ak xadar bi ngay àndal yooyu noonu mais da nga leen di comprendre comme keroog ni ma ñëwee ci open presse bi jékki ñibbi rek nga comprendre xam ne waaw mais du question du dara. comprendre naa la de man de mujj naa la comprendre waaye au début moom comprendre moo. waaye du dara xam nga. waa ji moom ku baax la nag moom ku mën a defar la. waaw Laye Laye Ndiaye la Laye Ndiaye. Laye Ndiaye président fan club bi mu ngi nii moom combat bi da see sonn baas yi ngay gis yëpp moo ko fi taq moo ko defar ak ma xaalisam xam nga maa ngi koy gërëm bu baax di ko sant waaw. di nuyu sëñ Issa Touré victoire bi moom laa ko may sëñ Issa Touré ñaan la ma bu baax a baax. daa mel ni fu ne ngay dugg de. ah man Babacar fépp laa nekk. doo njaago njaago yi kese. luy luy luy luy doo njaago njaago yooyu njaago réew mi rek njaamin njaago Sénégal. mais ñun fépp lañ bokk fii lañ juddoo fii lañ yaroo Babacar. waaw fii réew mi kenn ëppaluñu fi dara de. leer naa xalaatu ah ku mel ni Mor mi itam daa mel ni yàgg ngeen de Mor bu parcelle. waaw Mor suñu grand la xam nga ba ñuy nekk fii booy xam nga di bëri ay mbapat yooyu mu koy tëgg xam nga ba. ah tëgg na la mbapat. tëgg na mbapat waaw tëgg na yeneen champion fi mbapat sax. parce que man su ma jumul yàgg naa daan dégg ca émission Max Mbargane ba Top FM daan naa fa dégg Mor naan benn booy bu ñu waa Max naan ko kuy Franc boobu amagoo sax licence su ma jumul li ne xaw na yàgg de. dëgg la waaw gis nga suñu borom daal mooy doxee noonu ay mbiram xam nga suñu borom day jaarale comme tey jii par exemple xam nga yow yaa ngi ni jaar nga Lutte TV jaar jaar Leewtoo fii nga waaw fii nga mujj waaw affaire daal kenn xamul muy noonu moo tax na rafet rek. na lépp rafet waaw ñun moom ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm xam nga di gërëm ñëpp di sant ñëpp ñu ci jàpp ñu ñu ñaanal xam nga ñu ñu waaw képp koo xam ne ñaanal nañu rek ñu ngi lay bégee sur sama mbokku njaago yi maa ngi leen di waaw jàpp nañ ci bu baax a baax. Franc mën ngaa làkk njaago. waaw mën naa làkk mais après dinaa la dinaa la kiyal quoi. kër gi na sànq fi njaago yu ne. Ah, mais noonu la c'est normal xam nga yooyu noonu. daf si ko business sama waa ji kii maa ngi koy gërëm bu baax. liggéey moom Tafisco business. Tafisco business ñëwal boo ñëwee ba Sandaga na nga ko woo mu xoolal ay yëri ay jeesneer yu rafet comprendre nga. non Tafisco tabaski ñëw na. waaw. man li ma yàgg kii boo bëggee. ma non mag sama ñaari soxna. waaw moo tax ñaari soxna laa yor kon. na leer de samay wax day leer te ci lii micro lañ ko waxee. dama bëgg a ñawlu ji dee leen di bëgg naa jox tailleur bi yére yi dafis ko waxal samay wax day leer ah. ak kat Fallou Gueye tamit xam nga ah. borom Sandaga doomu ndeyam Fallou Gueye borom Sandaga ñoom Bamba ño waaw waaw ñoom ñoom Bamba xam nga doomu ndey tafis ko yëpp maa leen di ziar ñoom Amet ñoom ñëpp xam nga garga de aussi tamit maa ngi koy garga de ko dal metti na trop metti na trop man ci xam dara comprendre nga waaw pas kii dama ko mos quoi du mosuma koo am nag sama life waaw te maa ngi ñaan yàlla mu waaw mais maanaam boo déggee ma dama xam dama ci xam dara li mu yoroon yëpp da ko financé waaw xaalis bu bari may no xam bu garga de boo xoolee gëj na bëre xam nga ak retour am moo roon nekk retour bu garaaw ñëpp doon ko waaj waa ci faja waa Parcelles Assainies yëpp garga de lu mu amoon yëpp def na ko ci lu mu amoon lu mu amulul yëpp di ko nuyuwaale bu baax a baax di ko wax xam nga àdduna moo demee nii xëy suñu borom ñu la ko bëggee woon mais mu gën a waaj bul bàyyi Serigne Ndeye Rokhaya maa ngi lay ñu jàppaat combat bi sax dañ koy bëri bu soobee yàlla. incha allah yàlla na ko yàlla may ndam bu rëy. papa aussi tamit yàlla na ko yàlla may ndam di wax waa Parcelles Assainies yëpp. sama mbokk yi ñi may ñaanal ñi may taxaw fépp ñu jàppale papa Sow xam nga yàlla may ko ndam ci kaw Siteu tamit. Equivox ak Vox Arena loo leen di wax ñoom ñoom ñoo tëggoon sa combat. waaw xanaa di leen sant di leen gërëm xam nga parce que ñoom ñoo génnee moyen xam ma def ci waaw ñu gën a góorgóorlu rek xam ma am na yoo xam ne moom mënul ñàkk ci àdduna waaw àdduna noonu la waaw waaw te première te premièrement bi la après bu bu gënee toog gën a waaw après waaw dina ñëw waaw waaw gis nga waa waaw am na ñeneen ñu fi nekk Mor mu leen boole si ak waa neuf waa ànd dooleel franc jël naa nuyoo bi yëpp teg ko ci loxo Matar Lo grand Alassane Alassane Lo Papa Diop waa Inter 12 waa café gi waaw waa dimanche neex a neex waaw suba dimanche suba bi dana neex lool suba dina neex trop hmm. papis jigaan tamit xam nga suba day takk jabar maa koy waaw papis xariñ loo maa ngi koy ziar waaw di ko yàlla na ci yàlla bar amin amin amin xam nga di encore une fois ñëpp di nuyu coach jabon mhm, maa ngi koy nuyu baax taxaw na ci maam père ba du ma faat di ko ñëw fi indi ma teraanga bu bari teraanga bu may ndil Babacar si laa jënd ay billets waaw parce ay t yi xale yi sol yëpp ci ko defar dafa ci tam regroupement bi lépp ci lañ ko defar. kon daal père def moo def combat bi mën naa ne. lépp la def xam nga ñoom ak Mara mooy su may moo may yóbbu si otoom ak sëñ doom ndeyam sëñ Saliou Mara séeri yaama sëñ Saliou séeri xadi xadi comprendre maa leen ziar bu baax ak ñoom Baba Pël Carbo. Père Bolle Mon njaay Mod Jox Ndu ak sama frère yi maa leen di gërëm bu baax di leen sant waaw bi tamit sama frère la Odo ngi waaw moom la xam nga xam nga tamit lu ngeen bokk kii sama frère la waaw ñoo bokk ah. waaw sama mag la eh, Odo da koy tàngal ba mu tàng waaye xam nga di nuyu sama grand yi tamit xam ñoom Paul ak Jean di nuyu xam nga Jean Christophe Jean Christophe mu ngi ba France maa ngi koy nuyu moog jabaram di nuyu tam aussi sama benn sœur bu fa nekk muy Aimé moog jëkkëram quoi maa ngi nuyu bu baax yàlla di leen ñaanal yàlla na leen yàlla defal jàmm ak ñoom Marlise xam nga di dem ba États-Unis di nuyu sama benn njaatige bu fa nekk borom Washington moom xam na quoi di nuyu Babatal aussi tamit xam nga ak gars yi ne si diaspora bi yëpp di ma bëggee diaspora bi am na ñu fa nekk surtout njaago yi tamit maa ngi gis seen soutien yi yëpp yu ñu may porté waaw nga encouragement bi yëpp le parrain docteur Macoumba Diouf. ah docteur Macoumba Diouf moom fee la foroon quoi. fee foron foroon <laughs> fee la foroon mais jabar ji moo ànd ak man. Luis waaw Luis tan ah. waa xam na waaw dinaa ko yóbbul drapeau bi. ah nga dem kër ga. victoire waaw victoire moom laa ko may. Luis nga ko may. ñu naan ma pour ma yëkkati loxo kii docteur ma ne ah. du ma ko yëkkati loxo tan Luis laa yëkkati ba pare <laughs> waaw. waaw loolu daal amoon na yëpp si combat bi. waaw yooyu yëpp amoon na fa xam ay mbalak moo tax xam Sénégal fii ah. ñun jàmm rek lañu xam te sport bi ñun moom lañu xam ay ndaw lañu mm-hmm. lii moo ñuy dundal xam nga lii lañuy ñuy mën a amee di dem di jàppale suñu fami xam nga mooy loolu.